ci jamono jii ñu toll li mu defoon 2012 bu muy doog a egsi bi inondation amee dafa ne Sénat bi fi ne woon tas na ko noonu la ñuy exiger ci jamono jii ñu toll yi fi nekk yëpp te amuñu benn njëriñ ci réew wallaahi kenn mënu ma wax conseil économique et social lan lay njëriñ ci Sénégal kenn mënu ma ko wax je n'ai rien ñi fa ne nag man principe laay doon waaye lan la njëriñ kan moo mus toog ba ne bii la fi conseil économique social def loo xam ne mun naa ne njëriñ su dee assemblée nationale moo fi amul njëriñ ci nii mu foog ni mu mel actuellement lan la HCCT am ban njëriñ la am ci réew mi HCCT HCCT man musuma dox ba gis ñu ne lii la HCCT liggéey ci réew mi lu dul ay séminaire ak ay séddoo kër jëm ay au conseil du dialogue social xaw ma lan yooyu yàlla fi jëriñ yooyu yëpp Macky Sall dafa war a am yërmande ci askan wi seddoo politiciens yi ñu nekkee il faut ma créer tel poste parce que war naa jox sama tel alli poste ba dara new fa nga def fa ay milliards ñuy seddoo 16 milliards ci bii 8 milliards ci bële 4 milliards ci bii ñuy seddoo yooyu yëpp da ko war a tas peuple da ko war a exiger xaalis googu ñu jël ko dem jàppale ñi nekk ci mbëm mi su dee nag am nañu sañ-sañ ne nag dañuy war a tas ay organisation yu am ba pare waxatuñu kon ñu naan dañuy créer ay post pour sexal ay nit ay tàndarma tey war nañu am décence ñun acteurs politiques yi ba kenn warul ñëw taxaw ne jox leen ma chef de l'opposition avec un budget ku bëgg chef de l'opposition nag pour titre bi jëlal waaye ay 2 milliards ak ay 1 milliard nangam-nangam ci turu lan séddoo googu te boobu askan waa ngi souffrir boobu xeetu politique daf ko war a jeex am na ñoo xam ne jàpp nañ ni politique jouissance rek la mooy naa na naa fexe rek ba kole ci état bi man daal sama diggante bi may xàmmee ba may dee moo tax di nga gis ku dem ba mënatul dox di xëccoo ay poste bi may xàmmee ba may dee moom naa nekk ci état rek ñu may jox ay poste di ma jox ay oto di ma jox euh, ay ay ay ay caisse caisse noire ay même caisse noire yi muy bu Moustapha Niass muy bu Macky Sall muy bu Ousmane Tanor Dieng yooyu yëpp dañ ko war a jël dem verser ko pour régler problème mu ñi nga xam ne ñu ngi ci mbënd mi. ba tey nag ci cadre boobu ba léegi dama jàpp ni décence li ñuy wax décence mooy orma warul may kenn ci réew mi mu taxaw ubbi génne gémmiñam naan troisième mandat troisième sax ku ko wax dañ la war a fëgg ci kaso bi gis nga euh, président Niger bi moo xam Youssouf bi ay jeunes yu ne ci moom lañu ñu bokk bu ñu jógee naan troisième mandat dañ leen yóbbu justice te actuellement ñi ngi ca kaso bi fu ñu dénk réew juróom-ñaari at te nga ne woon juróom lay def defoo fi tous dara du nelaw munoo andi bilan ci emploi munoo andi bilan ci santé munoo andi bilan ci éducation amul benn secteur boo mun a andi bilan nga ñëw bu xum say élection am victoire technique ne jëlaat naa pour juróomi at juróom at yooyu léegi ñaari at wala euh, romb ci waaye gis nga moo tax li olof naan sàcc ndënd yomb na waaye foo koy fëggee bi mu toogee ba léegi musiba si musiba problème yi dul jeex kooku waru toog sax ba ci gént gént keroog ñu ngi ma envoyé benn vidéo benn waaye bu tëdd di nelaw di gént ba daanu ci ndox mi nekk mi ci inondation moom su géntoon ba daanu sax ci troisième mandat dafa war a xam su yeewoo daf war a xam ni nekk te liy gént la woon kon moom ay ñooñam sax ñuy dem ci plateau yi wax troisième mandat dañ leen waroon fëgg rëbës parce que ay pyromane lañu au delà de l'aspect constitutionnel ay pyromane lañu moo tax ñun ñu ngi engagé toute la population sénégalaise ñan ndaw ñi parce que seen avenir moo nekk en jeu jusqu'à quand vous allez laisser ces prébendiers de l'état là di def lu leen neex ci A ou ci B ci nii wala ci nele 2024 Macky Sall ne sera plus président du Sénégal L'homme, ne na ko dugal ci boppam benn 2024 il sera plus président du Sénégal Nous allons ñu rendre compte Les gens nit ñi ñëw ay intermédiaire il faut il faut rassurer il faut rassurer ko rassurer on a personne à rassurer ku nekk tu rendras compte de tes actes personne rassuré wuñu kenn te négocier wuñu kenn opposant bu yaakaar ni pouvoir da nga koy négocier ndax nga sa bopp koy foqati Abdoulaye négocier le pouvoir Macky Sall négocier le pouvoir peuple bi mooy tranché mooy décider du ay combine ak ay deal ak yooyu mooy joxe pouvoir dañuy pouvoir. seen bopp ñun li ñu gëm on est des opposants on fait face à ce régime on le boucle d'or et on met en place le système qui va sortir ce pays de ce gouffre on négocie avec personne du gouvernement moo ñu intéressé du gisee ak moo ñu intéressé seen dara intéressé wu bu dul woon corona beeg li fi woon man moom peut-être passation de service dañuy nuyonte ndax mosuñu woon gisante